الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين مكي نيغي سانت سونو بروم سبحانه وتعالى ديكو ديمبانديكو ديكو نيان مو جيغل ني سونو باكار موسل ني سونو سيك اك سونو بونو بوب دي سيدنا امول كين كوني ورا جامو كي دك كودر موم بروم بي سبحانه وتعالى di julli di sëlmal ci sangu-sang yi suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ñaan borom bi mu daal di ko jàmm xéewal ak mucc moom ak ay saxaabaam ak képp ku topp yoonam ba keroog bés penc gannaaw ñu leen di dénk di dénk suñu bopp ragal suñu borom subhanahu wa taala te mooy jëfe ay digleem te mooy te sori te bàyyi li nga xam ne mooy ay tereem mbokk yi dund gi ñuy dund boo ko settantalee ci tolof-tolof yi jafe-jafe yi ñagas-ñagas yi coono yi nattu yi métit yi ak daw wuti àdduna di daw ci ginnaawam top ba yi leg-leg nit ki dem ba dinem ngam yalla am lot lol leg leg ñu dem dem ba ay jikko yo xamni ni miinuñu ko ci doomu adam ci julit ci suñu rew ci suñu société mu fess lol tasaaroo nek ci kaw ñak li nga moy euh euh ñak jub ñak li nga xamne moy nité nite li nga xamne moy ak diiné nit ñi di def daanaka bo leen di xol seeni comportement seeni doxalin mbirum bàyyi ma la lay jox lu yellutoon ci doomu aadama dem ba fes suñu société mbokk yi aduna noonu la lu luñ gën a jege saa luñ gën a jege bés penc dund gi gën a métti jafe-jafe yi gën a bëri dund gi gën a ñagas waaye ay kéemtaan di gën a feeñ yoo xam ne kenn yaakaarutoon ci jamono dana mës a génn mbokk yi muy feeñ ay jikko yoo xam ne sharia daf ko ne moytuloo ñu ko ngir li muy yàq ci doomu aadama bi koy def li muy yàq ci li nga xam ne mooy société bi ngay dund li muy yàqal say moroom ñeneen ñi waaye li nga xamee ne dala koy sori sa borom waaye dalay xañ li nga xam ne mooy nga doon nitu diine nit koo xam ne dafay dund diine même boo koy woote woo ci làmmiñ jikko yooyu bu feeñee ci yow rek mooy sa diine suufe na sa diine dafa woyof sa diine des na lu bëree bëri mbokk yi loolu li muy jur mooy bew tooñ euh, mero noono xol yu tàng ku nekk yéene sa morom lu métti foofu la ñuy mujjee jikko yooyu bu feeñee ci nit ki da koy suufeel da koy wàccee daanaka ak niteem day jeex waaye ak diinam day jeex ci moom ba boo koy xool nit ku am yax yàpp ak deret rek ngay gis ci moom muy squelette buy dox nii nit waaye diine nekku fi ngor newu fi mbaax nekku fi jikko ju baax newu fi nite newu fi nit ki leneen la lay jox waaye du nit ba da ngay posé wu question kii ban façon nit la lu ko dal maanaam lu ko yóbbee nii lu tax mu mel nii lan la lan moo tax mooy sori diine ak jikko woo jikko yoo xam ne charia daf noo ci teeloon a fere ne bu leen ko bu leen ko mel baaxul yow mi koy jikko woo da lay sonal da ngay sonal sa bopp balaa kenn sonn sonal ñi nga nekkal sonal li nga xam ne mooy société bi waaye sori sa borom subhanahu wa taala bokk na jikko yooyu mbokk yi mooy pexe mu bon muy almakru sayyi nit koo xam ne bu yeewoo ci pexe lay yeew suy fanaan ci pexe lay fanaan suy gond ci pexe lay gont suy xëy ci fexe lay xëy soo ko séenee muy dem day fexe ji buy dikk day fexe ji buy toog day fexe ji buy jóg sax jóg bi pour fexe la yàlla nañ ci yàlla musal jikko bu ban la mbokk yi nit ku nit ku am jikko bu mel noonu fu mu nekk sonal lem bu fekkee dafa ne ci kër sonal waa kër gi bu nekkee ci quartier sonal waa quartier bi bu nekkee ci gox sonal waa gox bi bu nekkee ci am réew sonal réew mi bu newee ci daara sonal waa daara ji bu nekkee ci oto balaa nit ñee wàcc yàkkamtee wàcc fu mu nekk sonal nit ñi dafay sonal nit ñi ba nit ñi dañuy doyal ci moom sëkk lu tax mooy pexe subaa ngoon guddeeg bëccëg lépp pexe al makru sayyi du pexe bu baax parce que pexe ñaar la bu baaxal ak bu bon waaye moom ci pexe bu bon ci lay xëy xalaatul li nga xam ni moom mooy pexe bu baax mbokk yi pexe mooy iradatu char al makru sayyi mooy iradatu charri lil axarin mooy bëggal say mbokku julit lu bon mën naa nekk ci jàmm sama mbir na dox bu kenn bu mbiram dox naa baaxle bu kenn baaxle naa yiwle bu kenn yiwle naa avancé bu kenn avancé ku jéem a avancé naa ko fexeel ku jéem a am jàmm naa fexe mu denc jàmm ji nekk ci jafe-jafe bu mu tal jàmm loolu mooy doon li nga xam ne moom mooy doxalinam léeg-léeg nag li koy waral mu nit ki day am kàttan gu ko yàlla jox mu jëfandikoo ko ci di fexeel ay nit léeg-léeg muus gu ko yàlla jox muus mi au que mu xalaat ko jëfandikoo ko ci lu jëmale boppam kanam lu jëmale xam-xamam kanam diineem kanam lu jëmale réewum kanam waaye muus gi da koy jëfandikoo ci fexeel ay nit am na intelligence gaa mais intelligence bi jëfandikoo wu ko ci développement intelligence bi jëfandikoo ko ci euh, xam-xam yokk xam-xamam mais da koy jëfandikoo ci ay pexeel ay nit rek ci la koy jëfandikoo léeg-léeg alal gu ko yàlla jox alal gi au lieu que mu jaamu ci yàlla jàppale ci ay daara ay borom daara tabax ci ay jàkka jëndal ci ay nit ay ordonnance bënd ci ay teen nit ñi naan alal ji mu am boo ko xëyee suba ba ngoon jot lépp lu mu def ci alal ji fexeel ay nit amu ci programme bu baax fexeel ay nit ci lay dox léeg yàlla jox ko daraja daraja bi mu am au mu jaamu ci yalla santee ko yalla mi ko ko jox gërëmee ko yalla dimbali ci jaamu yalla yi daraja ji ci profito di xol kumuy pexel di xol kumuy pexel kumuy yakal, kumuy delol ginnaw lu ci lo rek lay xey mbokk yi alquran daf ñoo lo jikko bu bon bi muy jikko xey su ngon guddé ak di fexel rek ay nit fexel nit nak lu yagg ci histoire la lu yagg la depuis lu baax nefi ci la ay nit di fexel lu baax lu baax ci loru. ñukay fexel lolu mu ngi tambali won digënté suñu mam adam ak iblis iblis iñaan ak fexé ak pexé ba yakal suñu mam adam ci la nek ba suñu mam adam wàcc ci suuf tokul mu baye ko ba ci njabotam bokki suñu borom wax na bi ne ko yamkuru bika kafaru Muhammad bi nga nekké makka di waja gaday pour dem medine yéeféer yi ko ñu lay fexel iz yamkuru bika alladina kafaru ñu lay fexel fexe gi lan lañ doon fexel ñett mbir lu yus mo ñu japp la bet la japp la la la yew la ben firin bi bobu la benen firin bi ibnu kasir mo ne aw yes junuu ko ñu tejj la lu yes bituu ko mën naa firi ñu jàpp la téye la wala ñu tejj la buñ la jappé dafa melni rek dañ la tejj kuñ tak dafa melni dañ la tejj kon ñu tak la ben place bo do bouger yow Muhammad wala ñu tejj la ben place bo do bouger do meuna gaday ba keroog ngi pare pour daal di lay ray lolu moy bu ñëk bi ñaaral bi aw yaqtuluka wala sax duñ la jàpp fekk la fi nga nek ñu tak la wala ñu tejj la mais dañ la fay ray ben yoon te liñ programé won mooy giir yi nekk ci biir màkk yépp Quraysh ñëw bettandoo ku nekk dóorandoo benn jaasi bu yonent bi faatoo bu ñu xëyee waa banu haashim suñ taxawee ba banu haashim muy Abdul Mutalib ak njabootam ne ñun dañuy faylu yonent ci Yàlla Muhammad parce que yéen ko rey ñu ne ñun ñëpp ñoo ñoo ko dóorandoo du ñu mën a song kenn benn xeet lay nekk contre xeet gu bëri su ko defee ñu gañalee loolu moo doonoon plan bi ñetteel bi aw yuxrijuuka ñu génnee la sa dëkk bii di màkka ñett yépp lañ préparé mais yonent bi yàlla génnee ne ko laata ñoom ñu koy génnee kon seen pexe sottiwul mënuñu ko woon a rey yàlla naaxal na pexe bi takkuñu ko jàppuñu ko yàlla naax saayal na pexe bi kon bi desoon moo ñu génnee ko yàlla génnee ko avant ñu koy génnee yàlla jox ko ndigal mu génn avant ñu koy génnee borom bi mu ne wayam kuruun ñoom ñu ngi doon fexe wayam kuruun laa mais yàlla ngi fexe ndax saa booy pexe di teg ay plan yàlla day fexe yow li ngay fexe pour yow mooy dox mais yàlla plan mooy dox plan yàlla mooy dox ci sa kaw moo tax yow da ngay fexe yàlla di fexe yàlla ne wallaahu xayrul maakirin pexe yàlla moo gën ci pexe yi yow dangay fexe sa pexe néewul bi gën bu yàllaa gën buy ñëw di puus sa pexe di ko di ko puus di ko futbal muy dem doo ko yëg da ngay toog naan lu xew fekk fii këru yàlla la moo ko moom boo fi bëggee jiital sa pexe ci pexe yàlla yàlla woon la ne fii maa ko moom da ngaa sama kër la asamaan sama asamaan sa suuf di sama suuf la ndox yi sama ndox la gàncax yi sama gàncax la doomu aadama yi samay jaam lañ sama pexe fii dox day puus sa pexe teg bosam da ngay yeewu bés naan li ma li ma planifié woon lépp li ma tegoon lépp fan la jaar doo xam fu mu jaar parce que fii pexe yàlla mooy mooy dox wallaahu xayrul maakirin yàlla pexe mooy pexe bi gën ci pexe yi borom bi ne nit ci yàlla saalix bi nga xamee ne saalix ak jëléem bi parce que ñoo waxoon saalix bu dee yàlla la yónni waxal montagne bi mu xar gëléem génn saalif ne mën naa ko waaye damay bañ ngeen sonn ñu ne ko yow ñu sonn ak ñu bañ a sonn so yoon nekku ci montagne bi mën naa génnee gëléem wala mënta génnee gëléem saalif ne leen mën naa ko waaye damay bañ gëléem bi ñëw nekk nattu ci yéen ñu ne ko yow dafa mel ni li ngay woote wooju dëgg montagne bi na génnee gëléem werante bi bëri yonent xam na miracle bi ko yàlla jox du ko gaaw a jëfandikoo moo tax ko am pouvoir doo ko gaaw a jëfandikoo négocier ba sës ñu commencé ko saboté saalif ne ay ci ñaan yàlla montagne bi xar montagne bi xar gëléem génn ak doomam xamatuñ ñu ñuy def taxul ñu gëm salih ñu ne ko waaw ah, gëléem ji génn ab doom waaye charte bi mooy bu mu nekk ak ñun ci dëkk bi na gëléem gi ne ci àll bi charte ne amul problème waaye nag géléem gi fii benn teen moo fi am yéen a gëléem gi yéen a koy bokk teen bi gëléem gi day ñëw naan gëléem gi su waree ñëw dañuy gaaw a root li ñu am ci ay ndab yëpp root ba mu fees parce que gëléem bu ñëwee day naan teen bi ci dem ba yàgg ñu ne ñun dañoo sonn mënatuñoo bokk ak gëléem gi teen bi gëléem nit di bokk ak gëléem naan ndox mënatuñ ko gëléem gi day wuti fu mu naan wala mu bàyyi suñu teen saalih ne yéen a ko laajoon dikk na te day naan ci teen bi lan lañ def ñu complot ñoom daal di rey giléem yi complot gi juróom-ñeent nit ñoo ko jiite ci dëkk bi wa kaana fi l madinati tisatu raxtin yufsiduuna fi l ardi wala yuslixuun juróom-ñeenti bopp ñoo nekkoon ci dëkk bi di complot di def ay pexe lu xew ci dëkk bi ñoom la ñoom ñooy pexe la waa dëkk bi ñoo wër waa dëkk bi juróom-ñeenti ñoonu porte à porte wër kër yi ne leen giléem gi nañ ko faat nga ne leen suñ ko faatee mbaa saalix du ñaan boromam mu bëggal ñu ñu ne saalix ay mbir rek la def débat def ba génnee giléem gi ne gi sonal nañu solution bi mooy mu faatu ñun ñu jël suñuy teen di naan tranquille di root tranquille fitnay root gi dootu ñu ci nekk dem ba convaincre juróom-ñeenti nit ñoo convaincre société bi convaincre waa dëkk ba bañ leen convaincre ñu daal di rey gëléem ga faaqaru naaqata ñu rey gëléem bañ ko reyee <clears throat> saalix na leen nag yàlla dina wàccee mbugal ci yéen yemuñu fa même bi ñu reyee giléem bi ñu ne saalix ci boppam nañ ko faataale saalix ci boppam nañ ko rey borom bi di nettali mu ne وكان في المدينه تسعة رحت جروم نينت نيت ньо نيكون في دك بي يفسدون في الارض ولا يصلحون ياك رك لا ني ديف موي دي بخي بخي يبون دو ني واخ واخ جو باخ لان لا ني واخ قالوا تقاسموا بالله ني ني نانيو نانيو بولو ناني اند نين وا دك بي ييب ناني اند سوني اند لي ني ديف لا نو بايت لا نو بايتان ني فنان بيت كو راي كو سي غوديغي نقتله ليلا واهله اك اي نيتام ييغا خامني ньоكو جابلي بيرو ньо لن اوب لغي سوني ياو سوما نقولن لوليه ني واخ ньيغا خامني ньоي كليفامي ma maa shahidnaa mahlika ahlihi ñun xamuñu lu rey saalix suñ yoon newul ci dee am saalix daa xëy dee amaana ay doxandee ma fi jaar wala ay nit waa gis nga pexe mu bon bi ñuy teg wa innaa la saadiquun tey li ñuy wax nii dañ cee dëggu de suñ loxo laalul ci saalix taqewuñ ci xamuñu lu ko faat ñii lañ yeewoo gis ko ak yéen ba motuwul sax ñu jooy leen wala ñu jàppale leen ci dëj waaye suñu yoon nekkul ci rey gi loolu la ñu wax innaa la saadiquun yàlla ne déglul wa makaru makaran xolal pexé gi ñu pexé borom bi ne wa makarna makran ñun ñu pexé suñu pexé wa hum la yashurun te ñum yeguñu lan lañ bëggoon moy ray salih wala ma tafsir ne fi saalix tëddoon saalix dafa xawoon a wu ëpp ak wa dekk bi ñom ñu yoot ci guddi gi juróom ñi jité len ñu and ak mbolo dem di fati salih fekk fi mu tudd pour rek suñu borom dafa jéki jéki ben picci bu nekkon ci ben montagne pichi bi naaw te montagne bu reey la picci bi mënu ko sax yëngal mais suñu borom daf picci bi bimu joggé montagne bi naaw rek montagne bi barastiku montagne baras ci ko fekk leen fa dër leen dër leen ba pare baña jall mais tege seen kaw pour wa dëkk bi yewu xam li leen ray montagne bi daf leen a ba pare taxaw sa mu avance seen kaw la taxaw wa dëkk bi yewu gis gañu teud montagne bi nekk seen kaw ñu xam ñi lan lañ doon fexé yalla mu ne gis nga ñom liñ doon fexé wa yalla fexé na am pexé seen kaw bo seen pexé doxul motax sa boy fexé yalla yàlla ngi fexe sa kaw borom bi ne wa makarna makaran wa hum la yash'urun ñu fexé suñu fexé te ñom yeguñu dat mo xew mu ne fanzur kayfa kana aqibata makrihim xolal lan mo nekkon kayfa kana aqibatu makrihim la nekkon sen, mujjantolu pexage anna damarnahum wa qawmuhum ajmain damarnahum. fa nañ len wa qawmuhum muy juróom ñent ña wa qawmuhum ak nit ñañ andal ajmain ñom ñep bàyyiwuma ken borom bi daal joxe misal ci lolu mbokk yi pexe yu bon foko fek nit ku diineem oyef ku ku diineem oyef ku suufe moy def jikko ju suufe jooju parce que il faut nga suufe pour mën def lu suufe benen bi moy ku denc ak mbon ci biiram ku doon denc ak mbon denc ak coxor denc ak iñaan foo ko fekk mooy fexe waaye borom jikko ju yées foo ko fekk mooy pexe bokk yi nag pexe yu bëri ci nit nit ki soo xam ne subaa ngoon ci pexe lay xëy di pexe day dem ba day gëlëm yàlla dafay gëlëmal xol bi day gëlëmal bët yi jëf ju baax ju muy defati jëf ju jëf ju muy defati pour moom baax na pour moom baax na parce que yàlla koy gëlëmal waaye jëf ju bon la ba moom day jàpp ne jëf ju baax la mais fekk jëf ju bon la ba nit ñi suñu naan jëf ji dafa bon mom day posé question pourquoi nit ñi naan limay def dafa bon pour mom ci mom lu baax la fekk yàlla lëndamal na xel ni pourtant mom day jàpp ne man ma ngi def lu baax de def na effort limay def ni lu baax la pexe wu de lu baax lay def mais fekk yag pexe gi bam chronique ci mënatul def lu baax pexe gi da koy téy contrôler ko ba chronique ci mom ba effacer lépp lu baax ci mom ba même suñu jema def lu baax lu bon la ba mom pour mom lu baax la ba nit ñi suñu interpréter limay def lu tax baaxul mom da koy jaxal pourquoi nit ñi di bonal li def ni ci man lu baax la fekk na yàlla gëlemul mënatul def lu baax fofu la yobbe nit ki motax lu mata bayyi xel motax borom bi joxe misal. ci yonent bi alayhi salatu wassalam bi wa makka di fi bi biko wa makka di xel ci suratu ibrahim borom bi muné wa sakantum fi masakini alladhina zalamu anfusahum yéen da ngeen a fi fii ngeen dëkk nii ay nit ñu leen jitu ñoo fi dëkkoon muy nit yonent yàlla ak nit yonent yalla hud ñoo dekkon ci kër yi ngeen dekk nek ci neegi di fi dox man yalla ma jële leen fi yeen ngeen ñew dekkat seen place du ngeen bayyi ci xel lool te ñom dañoo toñu ma leen fi وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لهم كيف فعلنا بهم تين خم نكالا نكلا لم ديفون نيوم دما واتي بوغل سين كو دور لين بوغل وضربنا لكم الامثال ما جوخ لين اكزامبل جوخ لين مثال سي نيوم وقد مكروا مكرهم اي بخير رك لا في نيكون دي بخير وعند الله مكرهم سين بخير نيو سي يالا بروم من وان كان مكرهم لتزول منه الجبال تي بخير ني دون بخير ñaari fi la ko borom xam xam fi parce que ayu dafa am ñaari jangit pexe yi ñu doon pexe suma leen ci bàyyi woon mën na fay loolu mooy ñi ko firee ak taazim wa tahwil mooy pexe yu màgg yu rëy la am ñu ko firee istixfaaf mooy pexe yi ngeen di pexe lu mu rëy rëy rëy par rapport ak sama pexe mënta buusel sax montagne bu sama pexe ñëwee mënta yëkkati sax montagne kooku mooy istixfaaf kon yàlla nettali ñu ñooña lañ doon def ci ay pexe borom bi mu ne fala taxsabanna allaha muxlifa waadihi rusula yow muhammad bul mës a jàpp ak seen pexe lu muy rëy rëy yàlla du respecté lim wax yonentam ne dina la protéger dina la aar yàlla dina yàlla dina jeexal seen pexe yàlla dina yëkkati seen diine dina ko feeñal dina ko tasaare inna allaha azizun zuntiqaam yàlla ku màgg la aziz zuntiqaam ku mën a fayu la te buy fayu dafay metti mbokk yi alquran dafa fees dell ak ay aaya yu ñuy nettali ak li nga xam ne mooy taxawaayu ñu nekkoon ci kaw suuf di pexe ñii ci seen xam-xam ñii ci seen nguur ñii ci seen doole ñii ci seen daraja ñii ci seen muus ak xel mu neex alxuraan daf ñoo nettali kenn ku nekk fa mujj loolu bëri na lool borom xam-xam bind ci ay téere mënoo ko wax ci benn taxawaay dinañ ci jukki lu néew a néew loo xam ne nuru naak lu fi jaar loo xam ne waxoon nañ ko mu nekk contexte boo xam ne benn la waaye appréciation yi rek moom mooy wute bokk na ci mbokk yi mooy euh, yàlla nettali nañu ci nettali yooyu yu bëri nga xam ne soo ko jàngatee lim lay jox mooy ndeke pexe ay façon la pexe teg pexe lal ay plan ak tegi pexe ay façon la am na ci boo xam ni day nekk nit ki dafay teg ay pexe pour xeex dëgg xeex diine xeex nit ñu baax ni xeex wootekat yi pexe yi muy teg nag mooy def leen di diaboliser tiital leen nit ñi takkal leen ay étiquette wut baat boo xam ne su ko waxee nit ñi ragal ñooñu wala du ñu leen bëgg a déglu wala du ñemee dem ci seeni jataayu xam-xam wala sax dañuy làqatu pour seetaan leen wala pour déglu leen ñu ne jëlee ko fi parce que ñoom nangam lañ diabolisation boobu pexe boobu ñenn ñi moom la ñuy teg mooy assaddu anil xaq wa muxaarabati al maaruf mooy xeex dëgg ak xeex lu baax am na ñoo xam ne seen pexe yépp mooy xeex dëgg ak lu baax suñu xëyee suba ba ngoon mooy naka lañuy def ba xeex dëgg naka la ñuy def ba di fexeel lu baax ba du ba du tasaaru société bi ci loolu rek la ñuy dox képp ku baax ñu fexeel la kuy wax lu baax ñu fexeel la kuy wax dëgg ñu fexeel kuy tasaare dëgg ñu fexeel ci loolu rek la ñuy dox amuñu beneen programme boo leen see dañuy dem ak dikk ci loolu nekk am beneen pexe boo xam ni dafay nekk diggante ay nit lu koy waral muy xëccoo alal lu koy waral muy xëccoo mbooloo wala xëccoo daraja wala xëccoo place wala xëccoo poste ku nekk di fexeel sa morom boobu façon pexe am na am na fexe goo xam ne diggante diggante ay nit la ay nit ñoo xam ne ay xarit lañ wala ay àndandoo wala ñu bokk di wut dara wala ñu bokk nekk fenn ku nekk di fexeel sa morom loolu ci pexe yi la bokk na ci pexe yi nga xam ne pexe yi yi siiw la moy di def ay pexé digënté ay dëkk réew mo xam day def pexé pour nangu ab dëkk réew mo xam day def pexé pour nangu économie ab dëkk nangu suufam nangu géejam nangu ay richesse di xol ay pexé yu muy def ba daal di koy nangu loolu mi ngi am mbokk yi bokk na ci pexé yooyu moy def ay pexé politique yu dox digënté ay parti politique digënté ay organisation digënté ay mbolo di def ay pexé pour suul sa morom éliminer sa euh yok sa doole woné sa bop yoy pexé yépp fay am ngi am ci digënté li nga xamné moy nit ñi ak pexé bo xamné da ngay pexé pour note ay nit ak pexé bo xamné da ngay pexé pour fexé ba li nga xamné moy walu doxali ak walu atté nga fété woko ñeneen ñi duñ ci am li nga xamné mom moy wal ak pexé bo xamné da ngay jalgati ak ay doomu adama ak ay nit ak ay nit ak façon nit mën ci doon ci biir société bi nga jalgati li nga xamné moy seeni ak ak seeni momel ak seeni waref lolou ñu koy gis nit ñaa ngi pour nangu ay terrain wu jàmbur kii di fexe jël oto jàmbur jot ci këyit di jaay ko kii di fexe sax pour nangu jabaru jàmbur kii di fexe pour nangu ay këyitu jàmbur ah ainsi de suite pexe yi kenn xamul nu mu toll. mbokk yi suñu borom nett lañu pexe ak borom fan lay mucc pexe ak borom fan lay mucc Firawna dundam yëpp da koo fexe dundam yëpp ay pexe la xeex lu baax xeex dëgg la fi nekkoon moom Firawna yàlla def muy fexe ci pexe yooyu. bëggoon ko ko remplacer ci nguuram mu ray dom bu góor bu juddu jigen ñi pour wañi seen jur gi mu ci ñinga xamne ñoko neexul mu toroxal leen ngir lan ragal chaisam ragal fauteuilam ragal nguuram ba kenn du ko don sun borom di setan rek woné ko nguur mako joxe mako koy firawna lepp lo lépp kim xalaat ci ñaawteef ci mbonté ci méchanceté ah ak ci violence def na ko société moy exemple ci lolu kenn melul ni firawna ñu dem ba yag mu romb lolu wote wo ak yalla ne man lañ wara jaamu muy uluhiya ñu ne deet mu wote ak rububiya ma mom nit ñi ma leen mom ma leen mom yeen seen yalla man ngeen wara jaamu may sax ma leen mom ñaar mu wote wako suñ borom diko setan, yalla dafa mën seetaan yàkkamtiwul doomu adam mooy yakamti yalla du nit yalla la nit mooy yakamti mais yalla yakamti lu lutax moy bu la teye do ko recc yalla bu la teye do ko recc te di nga recc lu mu teye la suñ borom tok di ko rek firawna ta bi mu jël yépp di pexe ak di yak yalla di ko lutax moy yalla duko ci yalla sacc budul raw li ko wolof yak ne law euh suñu borom li firawna pexe yépp euh, yoni armem ci kaw suuf ñu tital nit ñi ak di leen menacer bu ni mako ko won fi xala xale yu ndaw yi xala yu ndaw yi dañ leen daan naxé bo nekk ci kër gi di bajantu ñu ne la ñu ngi wo firawna xala bi tok yaru ko ko ragnu la foofu la tolloon yàlla wammatal ko Moussa mu nekk liir ñu sànni ko ci pañe ci ndox mi yàlla wammatal ko muusa mu ñëw këram te moo doon rey xale yu góor yi xale bu góor ñëw ko am liir na téye ko te moo doon fexe pexe yàlla féete kaw pexeem pexeem moo doon rey ay liir yàlla indil ko liir këram xoolal ñaari pexe yi di fexe di rey ay liir yàlla indi la liir sa kër loo doon daw di rey liir yi mooy bu ma benn liir màgg ba remplacer yàlla indi la liir sa biir pale moo war a remplacer pexe yàlla ñëw na féete na nga fàtte na jël Moussa yar ko armée bi mu yor ci biir palais bi garde yi ñooy garde Moussa buy génn ci mbedd yi dox ñoo koy garde biir kër gi ñoo koy garde serviteurs yi ñooy servir Moussa comme ni ñu serviree Firawna lekk ak naan lalu Moussa dañ koy lal comme ni ñu lalee lalu Firawna xoolal pexe Moussa xoolal pexe Firawna ak pexe yàlla fan la mujj na mi Moussa yar jox ko mu lekk jox ko mu naan ba màgg yàlla def ko mu nekk yonant wote wo génn dekk bi ñewat di wote wo firawna titi ci jabolise ko xalam di dooro ñew ni xale bi ma waroon remplacer dekk ki la lu xew lan mo xew affaire yi fan la jaar do xam fu mu jaar yalla bu koy jaaral da rëcc def na lu nekk yalla indil ko ci biir kërëm ku ko wara doon te def na lu nekk bu ko xale bu goor doon yalla indil ko ki ko wara doon mu genné ci biir këram nekk waxambaane taxaw ne ko yalla mu yoni sa nguur gi day jeex li ngay wote way caaxaan nga buur nga te nit ñi nak am nañ borom bo xam yonni ma ci ñom pour ñu jaamu ma firaw bëgg a def pexe digganteem ak loola ba Musa ah, mbiram du dox loolu la yalla wax ni qulillahu asrau makran Yalla pexé mo gëna gaaw su ngeen xamoon pexe yàlla gën gaaw dafa yàkkamtiwul mbokk yi fan la dem muusam fan la dem armeem ba anam katanam ak puissance am anam ana alalam lepp yalla tagatal nako mu dem ci Moussa mu protéger ko yar ko ci bu Moussa màgg Moussa ko daaneel ko dal di koy remplacer la ta Moussa di wote wo yalla di wote wona yalla ko yónni wo fir'awna na ci lu bax fir'awna na pexem yep jeex kartam yep jeex mu ne Moussa kat la Moussa ne ko d'accord kat la njabar kat di kon say kat yi nga am mu yónni ci dekk yi dajale njabar kat ñu tew Musa ne len sànni ñu Musa Moussa yatam yat bi won na seeni boom ak liñ jabaroon ñom ñu ne xamne li du njabar parce que njabar ñun ñoko yor ku jang ci dekk bi ñoo la te Musa mësa nek suñu élève kon Musa du kat Musa ci dekk bi la magge te nek bokku suñu élève fa lay jangé njabar ñoko Musa jangalé Musa jangul ñun Musa du kat lim yor lenen la ñu ne ñun gëm nañ Yalla yi Musa ak Harun Firawna fofu gëm bu fekkon ku bax la yemu fa mu ne innahu la kabirukum allazi allamakum sihr ah kon ndeke Moussa mooy ponkal mi leen jàngal njabar yéen li ngeen yor njabar la Moussa moo leen jàngal njabar moom kon li mu yor moom it njabar la ndeke moom da leen a féete kaw rek jeexalul ci pexe de xam na ne li Moussa yor dëgg la waaye mu indiwaat pexe ne Moussa mooy ponkalu njabarkat bi leen jàngal njabar tegaat na beneen pexe pour waa banu Israil bañ a gëm ni Moussa ba tey yonantu la dafa njabar te pourtant mbir mi masala bu leer la de mooy Moussa ak yonante ko dikkal mu woote ci mu leer woote wul ci njabar te njabarkatu firawna ci njabar lañ doon woote Moussa musta woote njabar firawna ko njëkk a li mu yor njabar parce que njabarkat da koy woote woo nee na ko njabarkat nga de loolu moom la borom bi daa di def yàlla jeexal li nga xam ne mooy nguurug na ca woote Moussa ba mbokk yi suñ borom ci mbaaxam ci kéemtaanam ci xikmaam dafa def ne aduna bii lu bon ak lu baax moo fi nekk dëgg ak caaxaan ñoo fi nekk te li yàlla dogal kenn mënu ko delloo yàlla dafa jël ñenn ñit ñenn nit ñi nattoo leen ñenn dafa am nit ñoo xam ne ay façon nit ñooy seen nattu ñoo leen di teg coono ñoo leen di sonal ñoo leen di violenté ñoo leen di fexeel suba ngoon kii mooy sa nattu yow amoo benn nattu ci kaw suuf bu dul waa ji sa nattu yëpp moom la moo lay fexeel moo lay teg coono moo lay teg jafe-jafe sa nattu moom la ba nga xam ne man sama nattu yàlla kii la def sama nattu loolu mbokk yi dafay am kenn ku nekk xam na boo xoolee rek xam kenn ku nekk ci la yàlla teg nattu xam nga ko moo xam ci sa biir kër la moo xam koñ bi nga dëkk la am na koo xam ne bu lay gis tàggoo naa jàmm yooyu boo gisee xam ne waa ji amatul jàmm am na koo xam ne fa ngay liggéeyee moo xam école ba moo xam centre ba moo xam société moo xam entreprise ba moo xam marché ba am na koo xam ni ca gox ba ba réew mi mat nga koy yéeg ba àgg ca kaw kenn ku nekk am nga koo xam ni moom mooy sa nattu mbokk yi suñu borom dafit jamono ju nekk am na ay nit ñoo xam dañuy jox ci kaw suuf di yàq comme ni mu amé ñuy baxal nu lay amé ñuy yaq chaque fois té ñuy yaq ñoy gëna yuuxu ñoy gëna ciow ñoy gëna gën bëri wax ñoy gëna mëna wéranté hein chaaxaan ah lim leen di jaral daf sax daf lay sax jaaxal ci tassaré mbon ak xex li nga xamné moy lu bax borom bi néna na wa kazalika jaalna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha dëkk boo dem def fa ay ponkalu kacior yo xam ñoy kacior yu mag ya soy wër do laccé booy xool di leen gis xàmmee leen wax ju bon ci ñoom lay génne jëf ju bon ci ñoom lay génne pexe mu bon ci ñoom lay génne comportement bon ci ñoom lay génnee doxalin bu bon ci ñoom lay génnee ñoo koy jiite ñoo nekk au devant de la scène ñoo koy wax ñoo koy incarné ñoo koy wane nga koy gis akaabira mujrimiha ponkal ñoo xam ne ñu kàccoor lañ lépp luy indi ak kàccoor ak ndëngte ak jubadi ak pexe yi bon ca réew ma ca société ba ca quartier ba ca gox ba ci ñoom lay bàyyeekoo bul xaar ci ñoom lu baax duñ ko wax bul xaar ci ñoom lu lu lu baax duñ ko jëf bul xaar ci ñoom lu baax incarné wuñ ko bul xaar ci ñoom lu baax tasaare wuñ ko safaan bi ngay gis ci moom mënoo gis ci ñoom leneen lu tax xamuñu lu baax xamuñu ko mënuñu koo dund dunduñu ko mënuñu koo tasaare mënuñu ko wax parce que lu baax nekkul seen xol te xol li ci nekk mooy feeñ ci biti mooy feeñ làmmiñ bi mooy fenc ci cër yi ku nëbbul lu baax mënoo ko wax sa làmmiñ ku nëbbul lu baax mënoo koo jëf ci mu nekk loo xam ne lu feeñ la mbokk yi xoolal qissatu yonent yàlla Youssouf moom la ñuy jeexalee alayhi salaam Youssouf waxoon nañ ko fi yàlla def ay pexe ko wër ay nit fexeel ko ay mbokkam ay fereeram ba sànni ko ci teen ñu jaay ko ba mu mujj ab buur jënd ko mu dem ca pale ba ndaw su am katan gis nga ku am katan go xamni warul tal ay pexe ku am doole muy jabaru bur warul am warul tal ay pexe ci lu bax la wara dox parce que yàlla jox nako xéewal ànd ak muy fexe lan lay fexel moy nu mu détruire ëllëgu xale bi. bu ko woo ci ay ak mooy yàlla nekk ci loolu Yuusuf bañ mu tuumaal ko ne Yuusuf daf koo dafa séq ak moom lu bon te jabar buur ku mu tuumaal loolu bu la yàlla moyul chance kaso nga jëm jàpp Yuusuf alayhi salaam yóbbu ko kaso yóbbu ko kaso lan ci tooñ ko ci ëpp ko doole ci noot ko ak ci pexe nit ku am kàttan yóbbu ko ci kaso su borom def Yuusuf alayhi salaam ca muñam ci mbaaxam pexe yàlla ñëw féetewaat pexe nit kaw mooy lan yàlla wane fa xam-xamam wone fa ak wootee mu jàngal fa nit ñi tawxiid woo leen ci yàlla firi fa gént ba kaso bi xam ne Yuusuf day firi gént ñu génn ci kaso bi buur bi am lu mu gént ñu ne ko kañ nekkaloon ca kaso ba day firi gént mu ne leen kan la ñu ne ko Yuusuf mu ne wooy leen ko Yuusuf firi gént bi loolu doon sabab bu tax yàlla mu mu génn ca kaso ba buur bi daal di koy libéré ba wóolu ko boo buur bi jóge fi mu remplacé ko lu ko jiitu mu yor économie dëkk ba mbokkam ya ko sàndi woon xiif dab leen seen dëkk ñuy wut si koom ca dëkk ba Youssouf nekk Youssouf jiit nekk fa ñu ñëw di laajte di laajte ku yore ndimbali kan moo ko joxe ba agsi ci Youssouf xàmme wuñ ko Youssouf xàmmee leen may leen dimbal jàpp leen dimbali leen teg moom it lu tax ñu mën a dellusiwaat ci ñoom mooy fexe ba téye rakkam di Benyamin ginnaaw bi mu dugalee nattukaay ba ci saakam te def ko ngir ay jubluwaay bañ dellusiwaat ba xam ne moom mooy Youssouf ñu sukk ci kanamam di jooy di tëdd ci suuf si di bërëngu naan baal bu la neexee rey ñu neexee tëj ñu ñun ñoo la tooñoon waaye Youssouf baal ñu Yusuf jóg ne leen jóg leen mu jóg Yusuf yedd leen daal di leen di bàyyi ñu daal di ñu daal di dellu mbokk yi loolu nga gis ne pexam yàlla toujours mooy féete kaw kon ñoom ana seen pexe ana seen i plan lañ defoon lépp delluwaat na ci Yusuf Yusuf gën ca yëkkati loolu borom bi di wax ni wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli li nga xam ne mooy pexe bu bon du dellu lu dul ci ki nga xam ne moo koy pexe saa booy pexe lu bon wallahi yaa ciy dem li wolof di wax ne kuy gas kaam yaa ci njëkk a daxam yi aajo woo nañ defaraat suñuy xol ci coxor ci iñaan ci bañante baaxul ci ab société dafay yàq day freiné développement waaye day freiné diine doomu aadama yi aajo woo nañ defaraat suñu jikko sori réy réylu sori ngand ngandalu sori tooñ sori jaay doole aajo woo nañ defaraat suñu diggante ba sori lépp loo xam ne ay pexe la ay complot la ay euh, waxi suuf ak jëfi suuf yoo xam ne la koy lal mooy ay intérêt crypto personnel intérêt kenn wala intérêt benn group wala intérêt benn famille wala intérêt benn xeet wala intérêt benn gox wala benn réew déedéet ci kaw intérêt réew wala ci kaw intérêt société intérêt général mooy jiitu intérêt nit mooy jiitu intérêt famille mooy jiitu intérêt kuréel mooy jiitu intérêt ab dëkk wala ab gox ñu bàyyi ci xel bu baax a baax mbokk yi kii pexe it na yëg ne moom dana sonal nit ñi waaye dina sonn àdduna dana sonn àllaaxira te yàlla pexe bu ñëwee ci kiy pexe pexe yàlla moomu xejul ci waa ci aduna bay xej ci moom ci li nga xam ni moom mooy allaaxira allahuma ahdinaa li axsani axlaaq la yahdi li axsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa ant allahuma waffiqnaa limaa yurdika anna wa janibnaa maa yusqituka alaynaa allahuma waffiqnaa bi xusni liqbaali alayk wal isgaai ilayk warzuqnaa waffiqnaa liltaawuni fi taatik walmubaadarati ila xidmatik وحسن الآداب في معاملتك والتسليم لأمرك والرضا بقضائك والصبر على بلائك والشكر لنعمك يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله الله